wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin muhammadin sayidina wa xabibina wa ala alihi wa saxbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi mbokki jullit yi euh, mbokki taalibe yi yéen topp fii ci seen chaîne GMT TV foo leen mën di nekk ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkku ci yéen di ñaan subhanahu wa taala eh, ci weer sell wi ñu nekk ti mooy weeru baraxlu yàlla may ñu ñu dugg ci weeru wi gën ci weer wi nga xam ne ni moom lañ dëgmal te mooy shahru ramadan di weeru koor di weeru alquran di weeru ngëneel di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fekkale ñu ko ci fekkaloo ñu ko ci jàmm ñu woor ko ci jàmm mu nanguñu suñuy koor suñuy jaamu yàlla di nuyu ak euh, ziar bu baax a baax suñu kilifa ñun ñëpp di sëriñ Mouhamadul Muntaka Mbacke Bachir di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram kàttanal ko ba yéene ak naa li nga xam ne ni moom la am yépp ngir liggéeyal lislaam waaye ngir liggéeyal yoonu murit liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla may ko mu àggal mbégte bu baax a baax ngir li euh, nga xam ne nii moom sayidaat xawla Cheikh Xadim soxna yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci wanagu sëriñ bi mu nekk émission boo xam ne nii émission bu am solo la <coughs> rawatina soxna yi ndax dinañ ci fàttalante euh, soxna yu tedd yi nga xam ne nii ñoo waroon sëriñ bi ak seen euh, rôle bu am sol bi nga xam ne nii moom lañ doon joué kon euh, émission bi dina am le 30 bu jot maanaam weer wu jot le 30 incha allah tey nag ci njëlbeen gi dañuy. dellu tuuti euh, waxtaane maanaam soxna ak taxawaay yi nga xam ne nii moom lañ taxawee woon yu am solo yi ba lislaam sosoo ndax euh, yoonu murit euh, ci lislaam maanaam comme li sëñ bi waxoon sëriñ bi indiwu fi lu bees waaye dafa ñëw yeesal dafa ñëw yeesal dundal sunna lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu man daal dama yéene ñëw euh, yeesal sunnaas yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag bala ñoo mën a waxtaan ci sëñ bi wala ñuy waxtaan ci soxna yi nga xam ne ñoo ko waroon dañuy tàmbale ca tàmbale maa waxtaan ci soxna yi nga xam ne nii ñoom ñoo sos diine lislaam wala bokk ñoo nekkoon ci rondu yonent bi sallallahu alayhi wa ba lislaam juddoo ba léegi euh, mbokk yi ku nekk xam na ne euh, soxna soxna yi seen taxawaay Euh, ba lislaam sosoo ba léegi taxawaay bu màgg la taxawaay bu rafet boo xam ne ni kenn du wax lislaam euh, te tuddoo leen euh, dafa am ay tomb yu baree baree bari yoo xam ne nii day firndeel li nga xam ne nii moom laa wax ci tënk rek kon soxna yi nga xam ne nii ñoo dundoon ci jamono yente bi sallallahu ak seen taxawaay yu rafet yi nga xam ne ni moom lañ doon taxawoo day feeñ ci ay maanaam tomb yu baree bari bi ci jiitu mooy jiitu gi ñu jiitu ci lislaam euh, mbokk yi lislaam ji di suñu diine ji nga xam ne moom la yàlla tànnal euh, soxna jigéen moom moo njëkk a dugg ci lislaam ndax euh, kenn umpalewul xissa boobu nga xam ne ni mooy yonent bi sallallahu alayhi bis ba ko yàlla wax yoo maanaam tànn ko ngir mu def ko ndawam ci kaw suuf bis ba nga xamee ne ni moom la ko Jibril fekk xaaru xiraa ci xuntu wa nga xam ne ni ba ko yàlla di waajal ngir jox ko maanaam euh, yen bu kawe bi moom foofu la ko xiirtaloon mu doon dem ci xaaru xiraa di fa wéet di di fa xalaat aka a maanaam yàlla ak ay mbindeefam ak ay kéemtaanam euh, bi nga xamee ne nekkoon na ci xaaru xiraa foofu di fa wéet ak xalaat ci màggaayu suñ borom ba bis ñëw jibril ñëw feeñu ko ne ko iqra jàngal te ku nekk xamoon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon li ki ñuy wax ummi ummi mooy koo xam ne nii du jàng du bind mu jekk-jekk gis ku ñëw fekk ko ci xunt bi mu nekk wéet mu ne ko jàngal mu ne ko maa ana bi xaar man musu mënumaa jàng jibril xoj ko maanaam poñe ko sonal ko lool bàyyiwaat ko ne ko jàngal mu ne ko man mënumaa jàng mu def ko ñetti yoon mu ne ko léegi lan laay jàng ci la aaya bi nga xam ne nii moo njëkk a wàcc ci alquran wàcc te mooy aaya yi njëkk ci suratul alaq bismillahi arrahmani irrahim iqra bismi rabbika alladi alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam jàngal sa turu borom bi nga xam ne nii moom moo la bind moom moo bind nit ci maanaam bi nga xam ne mooy màndi yow jàngal ci sa turu borom bi nga xam ne ni moom moo gën a tedd moom bi nga xam ne ni moom moo xamal doomu aadama ci xalima waaye moo ko xamal lépp loo xam ne ni xamu ko woon di aay yi nga xam ne ni moo njëkk wàcc ci alxuraan ginnaaw bi mu defee loolu ba pare jékki-jékki rek dem làqu moom jibril gisatu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle lool tiit xamul li mu gis lu doon ndax mosu koo gis xamu ko mu di ko jàngaloo sonal ko lool ci noonu xelam demul ci kenn ku dul soxnaam su tedd sa nga xam ne ni saa yu jaaxlewaan moom mooy dikk yiir ko génn ko ci li mu nekkoon te mooy suñu yaay Khadija radiyallahu anha ci noonu ci la demee ci soxna Khadija aku um njàqareem aku um tiitaangeem ne ko zammiluni zammiluni wala dafiru yi sàng leen ma sàng leen ma fekk boobu mi ngi sonn mi ngi jaaxle waaye bis booba suñu yaay Xadija radiallahu anha taxawoon taxawaay bu am solo taxawoon taxawaayu yaay taxawoon taxawaayu soxna taxawoon taxawaayu lépp ci kaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko nettalee bi mu ko dalalee ba mu dal mu laaj ko lan lan la gis li nga gis nettali ma ko mu nettali ko ba mu àggal ndeysaan mu ne ko bul tiit bul ragal waaw ndax yow yàlla du la gàccal mukk ndax kat danga jokk mbokk di dimbale néew ju doole te maanaam tuddal koo jikko yu rafet yi nga xam ne moom la xam ci moom ne ko nag bay boo nga bañati ndax yàlla du la gàccal mu ne ko nag ki nga xam ne nii moom nga gis kooku euh, bul tiit ndax kooku mooy ki daan wàcc ci ki nga xam ne nii mooy Isa ci noonu la ànd ak moom dem ci benn euh, maanaam Euh, càmmiñam gu ñuy wax Waraqa ibnu Nawfal te kooku dafa amoon xam-xam ci euh, jamono yi jiitu woon mu nettali ko li mu gis ci la ko firndeel dëggalal ko ne ko kooku mu gis Jibril la ne ko kii kat ëllëg dina am euh, maanaam mbir mu màgg a màgg moo xam ne nii mooy moom lay am kon ci noonu ci la suñu yaay Xadija radiallahu anha daal di wuyu wooteeb yonente bi sallallahu alayhi wa tabaraan yi dafay day génn ci téeram bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi julli subaak euh, maanaam bisub altine ci suba gi ci la julli maanaam ci la mel na ci la lislaam taxaw daal suñu yaay Xadija ca bëccëg ga ci la julli moom nga xam ne kon maanaam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wootee moom suñu yaay Xadija di soxna moo njëkk a wuy ji euh, maanaam ci euh, diine ji kon loolu day tax nekk taxawaay boo xam ne ni marqué na l'islam te marqué na Euh, li nga xam ne mooy taxawaayu jullit ci diine ji waaye itam euh, ci noonu ñu xam ne nii bu dekkee soxna moo njëkk a dugg ci diine lislaam waaye itam soxna moo njëkk a joxe bakkanam ci lislaam te mooy soxna su Sumayya waaw euh, ndax kenn umpalewul jamono yi jamono yu metti yooyu nga xam ne nii jullit yi ñoo ngi ko doon dund jéefar yi di leen bunduxataal xataan ndax kat commencement lislaam bi jullit ñi amuñu woon doole seen lim néew na waaye itam yéefar yi taxawoon nañ temm ngir euh, maanaam gàkkal yoo woote bi waaye dox taxaw ba woote bi du fi jib lu nekk def nañ ko euh, rawatina ñi nga xam ne nii euh, dañoo néewoon doole amuñu woon askan woo xam ne ni mën na leen a mën na leen a maanaam yiir lu ci mel ne waa kër yaasir yaasir doomam di Ammar ibnu yaasir soxnaam di Sumayya waaw nga xam ne soxnaam suusu di suma Sumayya euh, ak waa këram yépp yéefar yi jàpp na leen di leen mbugal di leen mbugal mbugal yu metti yoo xam ne kenn mënu koo attan ngir rek ñu bàyyi diine yu bees yi nga xam ne ci lañ dugg dellu ci ak kéefër waaye ngëm yàlla gu am doole nekk ci ñoom ba nga xamee ne dee joxe seen bakkan moo leen gënal dugg génn ci diina ji nga xam ne nii euh, dugg nañ ci ci noonu la ñu faate Sumayya radiyallahu anha bakkanam jël bakkanam ngir yoonu yàlla bi nga xam ne kon moom moo njëkk a joxe bakkanam ci yoonu yàlla moom soxna soosu soxna Sumayya kon loolu tamit bokk na ci seen taxawaay ci maanaam euh, côté woote jëmale ci yàlla ak ci diineem ji euh, bu ñu demee tuuti tamit dinañ xam ne Euh, ci maanaam wàllu jiitu ci lislaam waaye itam seen rôle doon na feeñ bu baax a baax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu sàkku xam-xam ak di ko tasaare soxna yi nga xam ne ñoo jàmbalante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosuñu woon des ginnaaw ci sàkku xam-xam ndax dañoo xamoon bu baax ne euh, xam-xamkat dafa nekk lu am solo loo xam ne nii yàlla subhaanahu wa taala moo ko njëkk a fonk moom moo ci njëkk a xiirtal doomu aadama moom moo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko qul rabbi zidni ilman suñ boroom waxal yow yonent bi suñ borom yàlla nga ma dolli xam-xam waxu ko ne yàlla nga ma dolli alal yàlla nga ma dolli euh, maanaam euh, daraja wala dara waaye alal la ko la ko dolliloo bi mu bindee suñ maam aadama radiallahu anhu li mu ko njëkka def mooy daf koo xamal wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala malaayika nga xam ne kon xam-xam daal mooy lépp lépp moom moo koy lal kon soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci keppaaru Yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo xamoon loolu bu baax a baax a baax moo tax daawuñu wuute mukk ci jataay yi nga xam ne ni Yonent bi sallallahu wa sallam daan na ko def ngir di ci xamal saxaaba seen diine seen yi nga xam ne nii mooy tax seen diine jak seen àdduna jak rawatina seen jàmm yàlla waaye yemuñoon ci loolu bis daje nañ euh, dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa ngir di sàkku ci moom mu jagleel leen ay bis yoo xam ne daal ñoom kese lañ koy la koy jagleel ñoom soxna yi ngir di leen jàngal di leen xamal seen diine ndax xëy na mën naa am léeg-léegi ñuy wuute yenn jataay yi nga xam ne nii mi ngi am ngir seeni liggéey ñu bàyyi ci kër ga ak yu demee noonu moo tax ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di sàkku ci moom loolu euh, kon ci noonu euh, la ñu àndandoo dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa du sàkk daal di sàkku ci moom mu jagleel leen ay bis yoo xam ne nii dañuy dem ci moom mu di leen xamal seen diine waaw ndax léegi-léegi am na ci jotaay yoo xam ne daan na leen fekk ñu jàpp xëy na ci seen liggéey ba duñ ko fekke te xam nañ ne war nañoo sàkku xam-xam yonte bi sallallahu tamit daal leen wuyu ci loolu ne leen na ngeen di dajaloo ci bis sàngam heure sàngam Euh, bi ñu defee noonu di dajee ci bis yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen jàngal di leen xamal li nga xam ne ni moom lañu war a xam ba benn bis sax euh, yëmul ci jàngal leen waaye da leen a euh, jox benn li ñu tuddee ci arab bisharata mooy benn mbégte bégal leen ne leen kenn ci yéen bu ko yàlla nattoo ay doomam maanaam ñaar ñetti doomam faatu ci kanamam loolu day doon kiiraay digganteem ak safara am ku jóg ne ko yow yonte bi sallallahu alayhi bu dee ñaar nag mu ne ko waa bu dee ñaar kon loolu benn mbégte la boo xam ne nii yonte bi sallallahu alayhi wasallam jox na leen ko ginnaaw bi mu leen jàngalee ba pare kon seen taxawaay ci wàllu sàkku xam-xam ak di ko tas lu leer la woon euh, du ñu mën a wax ci tomb boobu lu dul euh, ñu tudd sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha kenn umpalewul taxawaayam bu kawe bi nga xam ne moom la amoon ci wàllu xam-xam ba saxaaba yi dañuy wax ne benn masala bu ñu mësoon a jaaxal lënt ci suñu bopp rek bu ñu demee ci sayyidatuna Aïcha radiallahu anha mu leeralal ñu ko lënt bu ñu amoon rek day daal di wuññeeku euh, bu ñu xoolee tamit euh, lim bi nga xam ne ni moom la solo ci ay ahadis kenn xamul lu mu daanaka kenn solowu ko te jigéen la moo tax euh, daanaka lu ëpp ci suñu diine mën nañ ne ci moom lañ ko jëlee radiallahu anha kon wàllu xam-xam daal ku ci ràññeekoo la woon moom suñu yaay Aïcha waaye euh, xam-xamam yëmul woon sax nag ci xadis ak fiq waaye dafa amoon xam-xamu sax li ñu tuddee chenre te mooy way waaye tam li ñu tuddee taarix mooy maanaam euh, xew-xew yi nga xam ne ni moo weesu woon waaye itam ku amoon xam-xam la ci li ñu tuddee ak tëbb te mooy médecine kon euh, loolu lenn la rek ci taxawaayu soxna yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci côté yonent bi sallallahu alayhi wa ci wàllu xam-xam waaye itam euh, tomb bi ci topp mooy seen taxawaay bu rafet ci laabiire gi ñu doon laabiire ak daan joxe seen xalaat yu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jëfe ak euh, saxaaba yi loolu dañ ciy joxe rek benn exemple euh, bu am solo te mooy taxawaayu sayyidatuna ummu salama radiallahu anha keroog sulxul xudaybiya ba nga xamee ne yonent bi sallallahu ak saxaaba yi ñu ngi jugee Madina jëm màkk ngir def umra yéefar yi tere leen waaw ñu amoon lu leen metti lool dem ba ca yoon ba ba war a dugg màkk ñu ne leen doo leen fi duggee ñu amoon lu leen metti lool mais yonent bi sallallahu alayhi wa ak lewet ga ak teega ak xereñ ga nga xam ne nii dafa xam nu muy <coughs> nu jëflante ak ay jafe-jafe ginnaaw xisa bu gudd boobu jërul ñu ci yaatal waaye ci gàttal bi nga xamee ne nii euh, taxaw na pour euh, digal saxaaba yi yi àndoon ak moom pour ñu watu maanaam ñu def ñu tuddee taxallul ñu watu pour wàññeeku dem ñibbi dem Madina saxaaba yi ak mer leen jàppoon tax euh, bi ñu bi yonent bi sallallahu alayhi waxee loolu pour ñu watu mel ni daal loolu da leen kiiwul ba tax jafewuñu digal la ca saasa yonent bi daal di dug dugg ci biir xawoon na mer daan ne xalakal muslimun julli ñi de alko nañ tey maanaam mel ne xam na euh, xaw a xawoon na am tamit lu ko jaaxal ndax ñàkk gi ñàkkoon a jëfee digalam mais sayyidatuna Umm Salama radiyallahu anha ca xelam bu rafet ma daal di koy xelal jox ko xalaat daane ko déet bul wax loolu yow loolu du la du la bëggoo loolu euh, bëggoo say saxaaba di alko kon léegi ni ngay def mooy da ngay génn rek bu leen wax dara bul wax kenn dara génnal nga watu soo génnee watu rek ñoom dinañ dinañ la topp ñu def noonu yéen def sallallahu alayhi wasallam daal di jëfee xalaat bi nga xam ne moom la ko Umm Salama jox daal di génn romb leen waxul kenn dara waaye dafa romb rek dem daal di watu nee na saxaaba bi ñu ko gisee rek ñoom ñëpp kenn ku nekk daal di roy ci yonent bi sallallahu ba ñi ngi wax ne sax kenn ku nekk di eh, di wat moroom ja ba nga xam ne daanaka xewtul sax mu maanaam kenn ci ñoom dagg bopp ki ci des kon loolu nekkoon euh, taxawaay bu am am solo bu jugee woon ci soxna Umu Salama nga xam ne ni mel na mën nañoo wax ne xettali na fa euh, jullit ña ca jamono jooja euh, ci noonu sax ci la yàlla wàccee suratul fatx di leen bégal ne inna fataxnaa laka fatxan mubina ba fa mu waxee laqad radiallahu an il muminina id yubaayiunaka taxta shajara nga xam ne ni foofu la yàlla di leeral di béraleene ñëpp ñi nga xam ne ni saxaaba yi nga xam ne ni ñoo àndoon ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci bis boobu ci sulhul Hudaybiya jaayanteeg moom ca ron garab ga ñoom ñëpp yàlla gërëm na leen daal leen dikk li nga xam ne ni moom mooy na kon ci noonu ci lañ kontaane bëgg mbégte moo xam ne ni wasuñ ko am te euh, loolu lépp bokk na ci li leen ko may mooy maanaam taxawaayu soxna ci xalaatam bu rafet bu nga xam ne ni moom la joxe woon <coughs> waaye tam Euh, tomb bi nga xam ne ni mooy topp mooy seen taxawaay ci woote ci woote bi euh, kenn umpalewul ne woote yonent bi sallallahu ci njëlbeen gi euh, jafe woon na lool metti na ci moom ndax yéefar yi taxawoon nañ temm comme ni ñu ko waxee léegi ne du ca dal taxaw nañ temm lu ñu mën ñu def ko pour l'islam bañ a yëkkati ko yonent bi ak ñi ko waroon li limba di ndaw ndaw waaye ngëm gi nga xamee ne moom lañu àndaloon moom moo tax maanaam seenu lim bu ndaw du leen tee joxe seen lépp seen bakkan seen alal seen lépp euh, kon ci noonu exemple yuñ ci joxe rek taxawaayu soxna mooy saydatuna asma bintu abi bakr radiallahu anha mooy euh, mbokk ci yaay Aïcha doon wax léegi waaye di doom ci abu bakar mi nga xam ne ni moom moo gën a sës yonent bi di xaritam di léppam keroog bis bi nga xam ne ni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ànd ak Abu Bakar di gàddaay làqatu ca xur woowa ñu tuddee xaaru sawr moom euh, Asma radiallahu anha moom moo taxawoon taxawaay bu rafet a rafet daan dem leen yóbbul euh, ñam daan takku di dem ànd ak fit wu rëy rëy te lépp daanaka ay danger woon yoon bi ndax wóorul woon mënoon nañ koo dogale mënoon nañ koo rey lu nekk mënoon na ko cee fekk waaye ngëm yàlla ga ak njàmbaaram ga ak dëgër nga tax mu daan takku di préparer aw ñam ba mu baax mu dem yóbbu yonent bi sallallahu ak baayam ci loolu sax ci lañ ko tuddee ci lañ ko dàkkantalee daatu ne taaxay te mooy boroom ñaari takkaay yi euh, ñi ngi wax ne tamit euh, maamam di waajuru euh, Aboubacar xam naa avant muy dugg ci lislaam doon na ko tëkku di ko maanaam di ko mel ne da koy tëkku daal ci taxawaay bi nga xam ne moom la doon taxawee waaye loolu lépp taxul mu deltu ginnaaw ci jàpp ci bay waaram ci woote bi nga xam ne ni mooy lislaam ba yàlla def ndam kon loolu tamit taxawaay la boo xam ne ni taxawaay bu am solo la bu kawe boo xam ne ni tamit soxna taxawoo na ko taxawee woon na ko ci njëlbeenug euh, lislaam Euh, kon euh, ci noonu daanaka ci la ñuy tënkee ci li nga li nga xam ne ni mooy soxna yi nga xam ne ni ñoo euh, nekkoon ci ron yonte bi sallallahu ak taxawaay yu rafet yu am solo yi nga xam ne ni moom lañ taxawee woon ba lislaam taxaw kon ñu ñëw lu gën a jege li ñu gën a jege te mooy soxna yi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci keppaaru Cheikhna Cheikh al Khadim radiyallahu anhu ak ni ki nga xam ne nii Serigne Touba. noonu la maanaam xëree woon ci defar leen defar gi nag mu ngi ko tàmbale woon ci <coughs> jàngal leen yar leen ci diine ak ci àdduna ak ci maanaam domaine yépp yi nga xam ne ni doomu aadama da koy soxla ngir am li nga xam ne daanaka mën nañ ne moom mooy objectif te mooy saadatu daaree ni mooy texe ci àdduna ak texe ci àllaaxira Euh, yitte ji nga xam ne ni Serigne Touba amoon na ko ci defar soxna yi dafa doon feeñ bu baax a baax a baax dañ koy tàmbalee rek ci ni nga xam ne moom la doon yittewoo maanaam euh, njàngum soxna yi te liñ ci joxe exemple rek mooy euh, doom ji nga xam ne ni moom la njëkk a am te mooy soxna ja soxna Fatima Mbàkke te mu gën a siwee ci soxna ja ak tamit soxna Assu Mbàkke Mbàkke Kajoor nga xam ne ñoom ñoo magoon ci ak njabootam di ki nga xamee ne ni noonu la moom ci wàllu boppam Serigne Touba moom moo féetewoo woon seenum njàng moo leen jàngal euh, dalal leen jàngal leen ba nga xamee ne njàng sori na mu door leen a booleek euh, yenn seen yenn mag yi ak ku ci mel ne Serigne Dame Abdourahmane Lo kon wax nañ ne moom ci boppam moom moo moo leen dalal jàng euh, moo leen jàngal boppam ba ñu mokkal alquran ba bind ba nga xamee ne sax <clears throat> defar na leen ñoom mu ñu wëlbatikuwaat di jàngale ak a yare euh, ba seen rakk yi nga xamee ñoo ñëw ci ginnaaw bi tamit ñu continuer liñ def ci ñoom ñu di ko def ci moom boo wàccee ba soxna May euh, soxna Sugaawaan euh, soxna Ami Cheikh ak njabootuk Serigne Touba gépp nga xam ne xam naa ne dinañ ci gën a yaatal kenn par kenn ci émission yi nga xamee ne ni mooy ñëw <clears throat> waaye yëmalewul ko ci. njabootu boppam waaye même euh, ñi tuddee saa bàjjan te mooy euh, soxna ak njabootu taalibe murid yi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci keppaaram nga xam ne nii ñoo doon yëkkati seeni doom yu jigéen di di ko jox waa kër sëñ bi ngir ñu jàng fa yaru fa euh, li nekkoon ci ñoom ci xam-xam ak ci yar dañ ko doon jël di ko jëmbat ci soxna yooyu noonu ba nga xamee ne ñu ci bari Euh, mujj nañ nekk ay ay royukaay ci wàllu gépp euh, fi ma waroon a tàmbale sax mooy soxna Asawaalo Mbàkke nga xam ne moom mooy waajur soxna Jaara Buso euh, ni mu ràññee ko woon ci soxna su am xam-xam doon jàngale góor ak jigéen daan yare ba wax nañ ne sax moom moo jàngal soxna Jaara Buso mi nga xam ne ni tey ji lépp moom la waaye tam Euh, duñ wax ci loolu lu dul waxuñu ci soxna jaaratullahi radiallahu anha mi nga xam ne nii euh, ni ni ak dundam gàtteewoon ci zahir nga xam ne nii dund lu dul fanweer at ak ñett waaye daanaka <coughs> ku ko xamul sax buñ la ko waxee loolu daf lay yéem ndax liggéey bu mat bi nga xam ne nii liggéey na ko ci euh, lislaam ndax kenn umpalewul xam-xam bi nga xamee ne amoon na ko xam-xam bu sell ba yar ba ak euh, lépp daal nga xamee daanaka il faut mu am mu doon émission boppam soxna jaara waaye ci noonu la wàccee ba njabootug sëñ bi nga xam ne ni moom lañ doon wax léegi kon xam naan daal ci gàttal euh, épisode bu njëkk bi fii lañ koy yemale ci nga xam ne daanaka dañuy waxtaanee euh, bi chaklin am rek xam naa yii di ñëw incha allah ñu gën a leeral gën a yaatal taxawaayu soxna yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci keppaaru Serigne Touba radiallahu anhu nga xam ne nii dinañ ci mën a jëlee ay njëriñ jëlee ci ay leçon yoo xam ne nii ñëpp du ma ne sax soxna yi waaye góor ñi ak jigéen ñëpp ñoo ci jariñoo ndax doonul lu dul maanaam eh, akum baax ak sell jikko yu rafet yoo xam ne nii ku ko jikkowoo woo say mbir dina defaru àdduna dina defaru àllaaxira kon ci noonu la ñuy joxe dig daje ba ci jataay bii di ñëw soobee yàlla eh, ñu dugg ci émission bi ci ay leeral yu gën a yaatu incha allah di leen sant bu baax ci teewlu gi di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. تبذار في الحسنات سيدات لمحسنات مريم فاختم خينات عند الذي لم يدرك